atlaa min akmaami risalati samaran yaani an wa zuhran muniran tabaraka smuhu wa tamat kalimuhu wa ammat niamuhu wa jammat xikamuhu wa jara bima kaana wa bima yakunu qalamuhu wa awjada al anaama min al admi wa jaala addiyaa wa gulma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 ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yéen li ñu sosoon ak yéen ci yonantu bu tedd bu sell bi ak mayam yu foor yu màgg yu tedd yi suñu borom subhanahu wa taala jagleel ko ko mu tolloog juróom benn fukki may ak ñett tolloog juróom benn fukki ak ñett yim dund ma tuddaloon la ci ñaar démb bi ci njëkk moo doon moo mag ku dul yàlla moo fi jiitu lépp lépp luy mbindéef rek yonent bi moo ko fi jiitu sallallahu alayhi wa sallama ñaareel bi yonent bu tedd bu sell boobu tamit lépp loo fi gis mu soqee koo fi rek mi ngi soqee koo ca leeram ga waxoon naa la ko tabaarakallaahu bu taxutoon ak moom yàlla du amal dara ci am ak yonent bi ci la aadama amee ak doomu aadama yi ci la asamaan amee ak lim ëmb ci la suuf amee ak lim ëmb ci la aras ak kursiyu ak lawhul mahfuus ak li ci aju lépp ci am ak yonent bi ci la loola amee yonentu bi yàlla wax ko dëggal loola ci hadisul qudsi yu ci xalaxtuka min ajli wa xalaxtul xalqa li ajlika bind naa mbindeef yépp ngir yow yow mu bind la ngir man waxoon naa la sawaay yi ci mag ñi wax mu nekkoon lu leer waaye tamit gannaaw bi ma la indilee hadisul qudsi bi danaa la indil hadisul nabawi bu koy tegtale dellul ci ibnu abbas moo génnee hadis bi waaye imaamu bayhaqi yu solo na ko imaamu surqaani solo na ko ci mawaahibu ladaniya imaam sabaki yu indi na ko ci shifaawu siqaam alxaafis alxaysami yu indi na ko tabaraani indi na ko ci awsat li yooya yëpp yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam di ca wax ne walawlaa muhammadun maa xalaxtuka bu taxutoo nag yonantu bi yow aadama sax duma la bind yàllaa ko wax aadama te loolu niñ ko koy wax di ko daanee ci hadis bi ma la waxoonoon démb ne la maxtarafa la maxtarafa la maxtarafa aadamul xatiata qaala yaa rabbi asaluka bi xaqi muhammadin lama xafarta lii fa qaala allahu yaa aadamu wa kayfa arafta muhammadan wa lam axluqu qaala yaa rabbi li annaka lama xalaqtani bi yaddika wa nafaxta fiya min ruuxika rafactu rasi fa raaytu ala qawaimi alarshi maktuban la ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabal xalqi ilayka fa qaala allahu sadaqta innahu la ahabul xalqi ilayya uduni bi haqi faqad gafartu laka walawla muhammadun ma xalaqtuka kon mu ne aadama bi mu fàggoo ak njuumte te njuumte gi yëpp zahir la waaye topp yàlla piir la ci baatin dañ ko ko digal lekk garab ga ci baatin tere ko ko ci saahir su ko defee nag bu ko lekkutoon du mën a wàcc bu wàccutoon doomu aadama yi duñ mën a soqee ko ca moom ba fiy nekk te loola yàlla namm na ko ba pare mu héegal namm ga nag ameel ga ci lii mën a am mu tere ko ko ci saahir te digal ko ko ci baatin ba tax loola man caa soqee ko léegi nag muy jéggalu yàlla ca loola ci njuum teeg gi te nekk topp ak baatin ah fu ne mu dem waaye yëg ne dëgg-dëgg booy sàkku dara ci kenn jaaree ko ca kaw kooka ko gën a jege rek boo xamee ki ko gën a jege xamaale la nga bëggoon ca kaw kooka mu yëg ne mbooleem mbindee fi li ñuy bari bëri yonentu moo ci gën a jege yàlla mu gis yàlla mii nga xam ne dafa wéet ba xara feñ koy wéetalee amul tomb mu jël tur yonantu bi di ko méngaleeg turam wa di leen dendale bind ko ca kenoy arashia aadama jaaree def tawassul moo tax ki koy dàq da ngaa xamul rek aadama njëkk a def tawassul ci sayyiduna muhammad mii sallallahu wa sallam ne maanaam yow yàlla maa ngi lay ñaan ci daraja yonantu bi ci xaq yonantu bi yàlla ne ko ud'uni bi xaqihi nang ma woo ñaan ma ci darajaam ma jéggal la bam ca jaaree ci daraja yonantu bi rek tawasul du dara loo bëgg a joti mënoo caa jot direct nga jaaree ko ca ka ca joti mu jotale la ca noonu rek la su ko defee nag sariya nangu na ko aada nangu na ko xel nangu na ko fa yàlla nekk ci kawe ci yëkkatiku boo ca mënta joti waaye waaye jaaree ko ci yonantu bi rek ma ca joti wala nga jaaree ko ci ab wëliyu yàlla wa ce joti wala nga jaaree ko ci jëf ju baax wala tabaarakallaahu nga jaaree ko ci loo mën a def tawassul lu joti rek la fekk foofa moo tax yàlla ba fa ne rek yaa ayyuha alladina amanu yaa ayyuha alladina taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata yéen ñi gëm yàlla waay waay sàkku leen jottali lu leen heggale ci man mu mel ni nag firi lut ñu ko ci aaya jooje waaye alquran mooy firi alquran boo demee ci jawaahiru rasail cheikh al islam haji ibrahim mu ne aaya jooju mu wax aaya ju ko firi ñetti aaya ñoo ko firi mu ne wasaa'il yi bi ci gën a mag gën cee tedd gën cee gaaw mooy yonent bi moo tax yàlla ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah ñaareelu wasaa'il yi mooy topp ab wëlli yàlla moo tax mu ne wattabi sabila man anaba ilaya bu ñetteel bi nag mooy jottalikoo jëf ju baax di ca ànd ñu baax kooku mooy wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi fekk yuriduna wajhahu kon yàlla ba mu ne yaa ayyuhal am taqulaa wabtaxu ilayhil wasilata wasilatu bi ñetti aaya yi ñoo ko firi moo tax boo demee ci téere yi ruuxul bayaan mu ne man mën nañoo def tawassul jaaree ko ci yonantu bi jaaree ko ci ab yonantoob yàlla mu dugg qul in kuntum tuhibbuna laa fattabi'uni man nañoo def tawassul jaaree ko ci wëllu yóbbu yàlla mu dugal wa tabe sabila man anaaba ilaya man nañoo def tawassul jaaree ko ci jëf ju baax joo jëf nga jaaree ca kooku mu nekk ay nawafil comme hadisul qudsi ba lam wax ma zaala abdi yataqarrabu ilay bi nawafilil xayri kon loolu tamit xeet la ci tawassul waaye du boobu rekk nag aadama nag dafa def tawassul moom mii ab yonantu jaaree tawassul ci yonantu bu ko ëpp garaat muy sayiduna muhammad bam ca defee tawassul rek lam ca doon ut am na ko yàlla xamal ko jeexitulu hadis bi ne ko walaw laa muhammadun maa ko bu taxutoon ak yonantu bi sax du ma la bind kon bu taxutoon nag yonantu bi yàlla du bind adama bu aadama xamutoon ñun ñii duñu xam waaye waaye bu aadama xamutoon lu fi asamaan ciy def bu aadama xamutoon lu fi xaljaanaay def ak safara waaye sax xadis beneen ci beneen riwaaya ñëw na safar tudd safara tudd aljana loolu ma wax la xadis boobu xaakim génne na ko ci mustadrak ci sartab buxaari yu ci wuuteeg lenn ca baat ya mu jëlee ko ca omar euh, maanaam omar ibnu wéral na ko tabaarakallaahu imaamu bayhaqi yu ci dalaa ilu nubuwa nga xam ne bayhaqi yu Euh, boo demee ci euh, téere bu tedd bu suñu mbokk mu baax si Ahmed Tidiane Gaye taal yi tuddee ko laa yafqahuna mu ne Bayhaqi yu borom xam-xam yëpp a d'accord ne xadisam yi mawdu amu ci moom du solo ay mawduwaat te moo solo hadis bii ma wax la mu ne tamit boo demee aydan imaamu Qasalaniyu génnee na ko imaamu yi génn na ko ci mawaahibu ladaniya imaamu sabaki yoon génne na ko ci sifaawu siqaam imaamu eh, eh, maanaam xaafis xasami tamit génne na ko loolu lépp boo jëlee tabaraan yi moo ko solo ci awsa mu nekk loo xam ne lu wér la am na ci riwaay boo xam dafa ne ko wa huwa aaxirul anbiyaai min zuriyatika boo jëlee na ci yoonu ab ibnu abbas moom dafa ne ko fa lawla muhammadun ma xalaqtu aadama wala janata wala naara kon boo fi nekkee di weddi naan aljana safara ak asamaan seeg suuf yi jant beeg weer wi ak nit ñeeg malaaka yeeg mala yi ak njanaaw yeeg jinne yi yonent bi taxut yàlla xamal leen njuumte la xadis bi moo ko tekkale fa lawlaa muhammadun maa xalaqtu aadama wala aljannata wala naara xaakim moo solo xadis bi musadrak demal nga seeti ko te u ñaareel ba demal nga seeti ko ci raqamu six cent cinquante et naka noonu tamit mu nekk isnaad boo xam ne bu wér la Ah, cheikh al islam ay bal al balqiniyu wax na ko boo demee def am na ko ca fatawaaxam ya ibnul juusi wax na ko boo demee ca wafa ci njëlbeenu téere ba ibnu kasir tamit toxal na ko ci bidaaya ak nihaaya al bidaayatu wa nihaaya xaaj bu njëkk ba boo demee da ko fekk ca raqamu téeméer ak juróom-ñett fukk cent quatre-vingt kon nag te boo demee ibnu taymiya ay wax su ko defee kon loolu lépp nekk na lu wér boo demee nag tabaarakallaahu hadis baa ngoog nekk lu wér muy tekki ne bu taxutoo nag yonantu bi yàlla du amal dara ci xam ak yonantu bi ci la jant bi amee weer wi asamaan si suuf si nit ñi malaaka yi mala yi ndax waxoon naa la démb ne loo topp boo ko teggee boo teggiwu sa tànk rek mu yóbbu la ci soqeekaay ba loo gis xam na soqeekuwaay amul lu amul soqeeku waaye boo toppee ndox mu won la fan la ndox mi soqeekoo nga topp dugub wala cox mu won la fi mu soqeekoo nga topp ceeb bi wala cere ji mu wax la fi mu soqeekoo waaye mbindeef yépp tamit boo leen toppee ña nga soqeekoo ca Seydina Muhammad loolu nag yàllaa ko def ci coobareem kenn mënu ca dara ndax mooy innama amruhu ida arada shay'an an yaqul loo kun fa yakun xanaa boo koy weddi ngaa bëgg a wan ne kon nag yow mi ko bëgg a weddi loo bëgg a saxal ngaa bëgg a wax ne kon nag li tax yàlla bind mbindeef yi sa sëriñ bi la wala li tax yàlla bind mbindeef yi sa waajur wi la wu jigéen wala wu góor wi wala li ya li tax ku tax yàlla bind mbindeef yi mooy sa mufti bi xanaa loolu loo gàtt gàtt xam-xam waroo koo nangu waaw boo ko xañee yonantu bi kan moo xeeyoo loola boobu garaat bu ko yonantu bi ñàkkee ku ko xeeyoo xamut ku dul sayduna muhammad kon nag hadis boobu di hadisul qudsi bi maanaam xalaxtuka min ajli wa xalaxtul xalqa li ajlika ak ah, walaw laa muhammadun maa kalaxtuka walaw laa muhammadun maa xalaxtu aadama walla janata walla naara loolu dong ci la suñ mag ñu baax ñu tedd ñi nga xam ne kenn gënu leen a xam xadiis sukkandiku ba nga dégg maam xalifa ne lawlaahu maa kaana kawnun إذ كان عين الكمال فهو المقدم حقا في الخلق دون جدال وإن تأخر بعضا فافهم لجمع القلال ca baxru mujj tas la ko waye xasida ba nekk kasful xumma boo demee ca baxru xafif ba dafa ne anta lawlaaka lam yakun kullu kawnin wala ma zala an zawihi saqaawu daa aminka al wujudu xatta stana rab min maqabisi dawika al anbiyaau kon loolu lépp foofu la ko teg abana min nuurihi nuur nabil alami ji Seydil Haaji Malik wax tamit foofu la ko teg ci hadis bu leer boobu su ko defee kon yonantu bi sallallahu alayhi ñaareelu mayam gu tedd gu sell gi mooy mbindeef yi ñi ngi soqeekoo ci moom bu taxutoon ak moom mel ne mbindeef du am waaye ñetteelu may gi nag moom kenn la yàlla jagleel bi mu bindee rooxu yi benn rooxu solo gud jëmm du malaaka du mala du njanaaw du nit yàlla dajale rooxu ya di wax ak ñoom ca kàddu ga yàlla ca ñoom ca moom ñoom mu ne leen alastu bi rabbikum ndax duhuma seen borom ba ko yàlla addoo ruuxu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk a jug wax balaa xaaloo balaa dam ko waxee moom mi ko njëkk a wax mursaluuna yi door koo wax anbiyaawu yu tegu ci muuminuuna ya tegu ci awliyaawu tegu ci demeet muslimuuna yi ñooña ñëw ñii dem dem ba kuffaar yi sax munaafiquuna yëpp wax ko waaye ñoom ñoo nekk ca gannaaw sàppe ya loolu la ruuxul bayaan wax moo tax bañ waxee balaa balee googa ba ñu ñëwee saxaluñ lam làmboo ñii nag ma tudd nga xam ne ñoo nekk ca sàkk njëkk ya anbiyaa yu ñoo jiitu gannaaw bi roxo yonantu bi jiitoo mursalo yi ñoo jiitu anbiyaa yu tegu ci muminuuna yi wëlliw yi génnee tegu ci muslimuuna yi door caa tegu munaafiquuna yi door a ñëw ak kufaar ya nekk ca gannaaw moo tax ñoom ba ñu waxee lañ wax foofa ci balaa nangu fa ah dañu ñëwee fii daal roox ya sol jëmm lañ waxoon jëfeewuñ ko waaye nag la ca mën a xam daal ba yàlla ne alastu bi rabbikum daal rooxuk yonent yàlla Muhammad a njëkk a wax balaa moo tax yàlla di wax ci alquran ne wa id axasa min min bani aadama min zuhurihim zuriyatihim wa ashadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu balaa shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilina foofa ba ko yàlla di wax ruuxu yonent bi moo njëkk wax balaa ku cay tegu tegooti ca lu cay tegu tamit door caa tegu loola ngëneel lu rëy rëy la foofa nag boo demee ca xasaayisul kubra mu ne loolu li muy tekki imaanul bayati la allati tubxasu lil xulafa mooy ngëm jaayante la gi ñuy jàppee ci xulafaaw yi ku war a toog ci xalifa nit ñëpp ñëw jaayante ak yow foofa ruuxu yëpp dañoo jaayante ruuxu yonent bi ruuxu yonent bi jaayante yàlla su ko defee nag kon xoolal ma màgg gi ñu màggal yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci ngay xamee ne yonent bii ndeke mooy yonentoo yonent yi mooy nabiyul anbiya yi mooy rasulul mursalina yi moo tax bu yowmal qiyaamee yonantu yëpp seen dara dañu nekk ci roon drapeau wu yonantu bi yonantu bi yëkkati drapeau bi tiim leen ci lay wax ne aadamu wa man duunahu taxta liwaa'i yowmal qiyaama kon kooku mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tedd mu sell mu màgg moomu tabaarakallaahu kon loolu mooy ñaareelu may gi mooy ki kàddoom gi njëkk a bi yàlla laajtee ne alastu bi rabbikum mooy ki njëkk wax balaa waaye tamit moom yonent bu tedd bu sell boobu ba ko yàlla di xamal nu bóotoom ga booba aadamaa ngi ci diggante ndox ak ban mooy ñeenteelu may ga ba moom waxal na ko boppam ne kuntu nabiyan wa aadamu bayna ruuxi wal jasad am beneen riwaaya bu ne kuntu nabiyan wala riwaaya bu ne inni la xaatimu nabiyina wa inna adama la munjadilun fi tiinihi booba adama ngay sànneeku te diggante ban ba ci diggante tabaarakallaahu rooxu ak jasad ñaari riwaaya moo ci am te waxoon naa la ko su ko defee kon euh, wax naa la ko moom yonent bi sallallahu alayhi ci euh, ñaari riwaaya yooyu ma indi la ko tabaarakallaahu mu nekk jëmm joo xam ne ju tedd ju amul morom riwaaya bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallama imaam ahmad a ko génneeg yu ci taarixam tabaraani yu ak xaakim ak bayhaqi yu abu nuaymi ci masiratul fajri ñi laaj ko ne ko mata kunta nabiyan qaala wa aadamu bayna ruuxi wal jasad mooy riwaay bi ma la njëkk a jox bu ñaareel bi nag imaam ahmad ko génnee ak hakim ak bayhaqi yu jëlee ko ci irbaad ibnu sariya mu ne man maa dégg sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inni inda allahi la xaatimu nabiyina wa inna aadama moo tax man di la ñaari riwaay yooyu yëpp kon loolu moom la ko yàlla jagleel Oh, waaye tamit yonantu boobu sallallahu alayhi wa yonantu yëpp jaayante nañ ak moom kenn ku ci nekk bala laa yàlla yónni da ngay signé accord dangay ngay ne su ma dajeeg sayyiduna muhammad ci jamono danaa summeeku takkaayu bokk ca ña koy jàppale ca liggéeyam ba soo ko waxee ba pare signé yàlla door laa tamponeel sag nubbuwatu ak sag risaalatu soo xeeyewoo nubbuwatu mu jox la ko soo xeeyewoo nubbuwatu mu jox la ko gannaaw bi nga jaayanteeg yonent bi kooku wax naa la ko wa is axasna min nabiyina misaaqahum wa minka wa min nooxin wa ibrahima wa muusa wa isa an aqimu diin demeet foofa dañoo jaayante yonent ba pare door a xam la xam ba tey abu sahlin alqataan génne na mu jëlee ci sahlu bnu saalih alhimdaani yi mu ne man maa laaj aba jaafar muhammad ibnu ali kayfa saara muhammadu yataqaddamul anbiya wa axiru man buisa nu yonantu bi mën a jiitoo yonantu yi te moom lañ mujjee yónni haa qaala inna allah taala lama aqasa min bani adama min zuhurihim duriyatihim wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum kaana muhammad awwal maanaam kaana muhammad awwala man qaala balaa wa lidalika saara yataqaddamu al anbiyaa wa huwa aaxirun aaxiru man buisa kon bi ko muhammad kaab laajee aba jaafar moom sahlu bnu saalihim daani moo ko laaj aba jaafar nu yonantu mën a mujjee te jiitu mu ne ko waaw bi yàlla dajalee mboolem rooxu yi benn solo gun mbubb ci doomu aadama yi seedalee leen ci seen bopp ne ndax duuma seen borom rooxu yonantu bay njëkk a wax balaa kuy wax door ko wax foofa la jiitoo yonantu yi donte mu mujj génn moo tax mu ne ko kaana muhammadun awwala man qaala balaa walidalika saara yataqaddamul anbiyaa wa huwa axiru man buisa moo tax maam xalifa di la wax ne wa in taaxara baaxsan fafham li jamil xilaal wallaahi bu jiitoo tam mujj xamal ne dajale jikko yam xable woon ñooña daagoo ko ci seen nit bañ foog ne ñoo ko moom mu door koo dagale door a daagu bañ a waajaanga looloo ko tax mu mujj waaye billaahi lam xable woon bu ko njëkko woon a sañse abul ko kenn daago ku daagooti kenn du la xool waaye moo xabaloon aadama sañseem bu rëy booba noona moo xabaloon yonentu yàlla ibrahima xaritoo xam nga ca yàlla moo xabaloon tabaarakallaahu yonentu yàlla Moussa ak euh, tànn gi ko yàlla tànn mu nekk kalimu laay moo xabaloon yonentu yàlla Iisaa ruuxu laay wa kalimatuhu alqaaha ilaa Maryama bam leen ko xabalee ñi daagu ba gaay ne gaayaa nga yonentu bi ne la ma leen xabaloon dagal dagal leen ko ngeen delloo ma ko la la teqali ko xoon ke ñoom ñëpp dagee ci jëmmam ja bam feeñee waxatuñ kenn mi ngi mel ni biddiw yi nekk fi guddi jant bee leen xabal leer keroog bu jant bee ne bang kenn du leen gis a kenn ku ne fa woon yàlla bu xasee feeñ dara dootul feeñati loolu la ko yàlla defal mooy jant bi jantam nga neel la keroog ba mu ne dàkk xas feeñ rek lépp nëbbu na maam Khalifa wax na ko ne ne ko zaharal baadu min sifatika fihim fa humoo wa anta mu ne ko sa lenn rek moo feeñ ci ñoom waaye sa lépp xañ ci ñoom lenn ci say may ci say ngëneel moom nga jëloon xabal leen ko kenn ku ne nga xabal ko ca yenn waaye lenn la de comme ni jant bi xabalee lenn ci leer ci biddiw yi lépp leeri jant bi xajul ci biddiw yi mi ngi jàngale xam-xamu astronomie waaye mu ne ba jant bi ne dàng ne fàng biddiw yi kenn ku ne fa nga ne woon yaa nga fa waaye kenn gisatul leen dafa mel ni sondeel buñ taal ci lampe courant waaw kon nag bu lampe courant bi jiitu lu muy defee sondeel waaye dañ taal sondeel yi bañ xam ne sondeel kan de xam na lu man lam man kat doyoon ñu waaye ba lamp courant bi ne raay ñëpp ne fay leen sondeel yi yonent bi fi bam ne raay jantam ba lam xable woon lépp mu dagale ko la gaay ne fay leen gaayale ndax gaayale kat sax moom mii ci lañ jëlee woon leer kon zahara al baadu min sifatika fii fa humu anjumun wa anta dukaaw anta kanzul ilahi wa zuxru wal iz suwa min kastumidati naamaaw ci yow la yàlla tëbbu xéewal yi de moo tax kon yonantu bàngoog ci ñeenteelu may ga ñeenteelu may ga mooy ne yonantu yëpp bala caa yàlla yónni kenn dana signé ak yow ba nga d'accord ne yonantu bee sama yonantu gëm naa ko nangul naa ko su ma dajee woon ak moom danaa takkaayu xeexle ko ba nangu yàlla door laa signal ne laa ca demal ngay ñëw tamit moo tax ku ca dox sa mission balaa jeex nga dagale sa nit ñi ne leen ku fi sayyiduna Muhammad fekk rek na nga jaayanteeg moom topp ko te def ndigle ya ak tereem ya man mii doon seen yonantu man moom sax mooy sama yonantu ndax mooy nabiyul anbiya loolu yonantu yàlla Muusa wax na ko nitam ña ci ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu yonentu yàlla Suleymaan ci riix la toom bu gudd booba mu dem ba fa war a nekk tey mu dagale nit ña ne fii ma taxaw moo nekk kër ak gàddaay ak mujj ak yonentu yi lii ma wax ku ko fekkee na ko gesal ku ko fekkewut ñun ñii de mooy suñu yonentu jaayante nañoo moom ci baatin ak ci zahir sama jaaro baa ngi nii turam laa ci bind ñu ne ko à peu près fi nga koy wax rek fu muy feeñee mu ne à peu pare junnee xam tubaaxul tubaaxul ximyar yi waxoon na ko nitam ña bañ na ko ba mu demee ba ci madul su mun a war a sax dafa fa tabax ay cité seet ka ca ëpp xam-xam mu jox ko kër ga ca gën a baax ne ko toogal fii di ter tertoxaale mu jëg yonantu yi moom laa tabaxal kër gi bu gàddaay see fa lay jëm ñoo nga ñoo doon doon noxante di doon noxante ba abi ayubal ansaar yu sët la ca góor googa noona ñu tabaxaloon kër googa moo tax yonent yi bi rek dem dali kër abi ayuba déedéet bu kenn waxati kër abi ayuba këram la dal kër googa tubaaxul ximyéer yi moo ko tabaxaloon maami abi hurayra ya ak abu ayuba ya di ko donnante ba nekk ci abi ayuba moo tax abi ayuba yónnee wu yonent bi leen avant muy yegg moo tax ba mu ñëwee wàcc ca gëléem ga mu am sañ-sañu jël ay bagaasam di ko yóbbu këram te fekk na waxagut ak yonent bi wax nañ ci baatin mag mu day na yonent ñeme naa ñëw ci dëkk wàcceegut ay bagaasam nga ñemee jël bagaasam di ko yóbbu sa kër ba yonent bi laaj na am sama bagage ñu ne ko abi ayuba moo ko yóbbu mu ne almaru maa rahlihi looloo ko waral kon déggoo googa ci dégg ak baatin nga la ci leetar bu mu donnoo ci ay maamam ñooñu donnoo ko ci seeni maam ñu koy donnuwante ba ca kafa tuba wala ximéer yi tabaxaloon kon yonentu baa ngoog sallallahu alayhi te booba lii lépp dara xewagut kon euh, kooku mooy juróomeeli may ga ba ca timit ci ñooñu noonu dañoo jaayante bañ na leen da ko gëm ñu ne d'accord summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurannahu qaala aqratum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashadu wa ana maakum min ashahidina nga leen a waaye tamit juróom-benneeli may ga moom kenn moo jagoo ñi tudd turam wa ci mbooleem téere yi téeméeri téere ak ñeent ñoo mas a ko ci asamaan ñëw ci jaami yàlla yi mbooleem téeméeri téere yooya ak ñeent suñu maam aadama amoon ci fukk yonentu yàlla Siisa am ci juróom fukk Idrisa am ci fanweer Ibrahima am ci fukk muy suufu Ibrahima ja yonentu yàlla Muusa am tawret Daawuda am Zabuur Isa am Linjiil sayiduna Muhammad ñëw am furqaan mbooleem téere yooya tudd nañ ca téere ya turu yonent bi téere yëpp ko indi bind turam yi ci mbooleem asamaan yi bind turam yi ci mbooleem suuf yi ci mbooleem xobi garab yi bind turam yi ci mbooleem pottaxi jigéeni huru ayni ya bind turam yi ci mbooleem bëti malaaka ya bind turam yi ci mbooleem xobi sidratul muntaha ya ndax booba borom tur wii ñu war a bind ñëwagul noonu ñu bindee turam wala ñu bindee meloom ya bind ay jaar jaaram ci téere ya kooku alquran wax na ko alladina yattabiuna rasula nabiya al ummiya alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili lii mooy tur wa meloo wa nag mu ne yamuruhum bil maarufi wa yanhaahu anil munkari wa yuxilu lahum altayibat wa yuxarrimu alayhim alxabaisa lii la yàlla wax mu ne ñoom ñi dañoo bon di ko weddi ñi jàng tawrat ak linjiil waaye yonent yàlla Muhammad mi de waa tawreet ak waa linjiil fekkoon nañ turam wi mu nekk rasul nabiyul ummi fekkoon nañ ko mu nekk luñ bind ci seen téere ya ci tawreet ak linjiil fekkoon nañ ñu bind ci ay meloom ne kuy digle lu baax la te jiitu ca ñëpp kuy tere lu bon la te kenn du ko ci gis lépp luy lu teey dana ko daganal lépp luy lu xaraam muy lu bon dana ko xaraamal ci ndigalal boromam moo tax tabaarakallaahu lii fekkoon nañ ko ci seeni téere ya kon nag buñ ko dumóoyoo dañoo nar a yàqule moo tax waaye lii mi ngi ne leer naññ ci tawreet leer naññ ci linjiil bañ koy jéem a nëbbu nag alxuraan a ñëw weer leen ne li ngeen di nëbbu nëbbu ndax lii mi ngi ne wat leer naññ ci seen téere ya loolu moom la ko yàlla jagleel sallallahu alayhi wa sallama mu jagoo ko moom kenn wala si yeneen yonent ko jiitu woon yëpp amul kenn ku am loolu noonu ñu bindee ko turam wa ci téere yooya ni lañ ko bindee ca kenoy arasiya looloo waraloon suñu maam aadama gisoon ko gisoon ko ñu bind ko ba taxoon mu jaaree ca tabaarakallaahu kattaliku ci dara jaam ba yàlla mayee ko ca lam ko ca may ah kon nag loolu la ko yàlla defal moom sallallahu alayhi wa sallama moo tax yonantu yàlla Moussa déclaré na ay mbiram njëkk yonantu bi di ñëw ndax wax naa la turam yi duñ ne ko moo tax Moussa saña wax ne yaati min ba'di ismuhu Ahmadu kenn mënu ca dara imaamu Tabaraani ne génnee na jëlee ci abi umaama albahiliyu mu ne maa dégg yonantu bi mu wax ne doomi maat yi ibnu adnaan ban matee juróom fukki góor tàbbi ca armée yonentu yàlla Muusaa ba su ko defee nag ñi xee ko xamal ko Muusaa nag ñaanoon leen yàlla yàlla wax yu ko ne ko bul ñaanati ñi yàlla sëti mu jëg yonentu yi mi ngi seen biir ki nga xam ne mooy nabiyul ummi yi di nazirul bashir mooy boroom xeet wuñ yërëm wa nga xam ne dañuy jëf lu tuuti yàlla nangul leen ca lu bëree bëri tàbbal leen jana su ko defee bul ñaanati yàlla armée bi mukk mukk mukk mukk ndax kat ñeen fukki góor yoo xamee ne ni doomi maat ibnu hadnaan lañ ñu ngi ci te ñooñu ñoo war a meññ yonent bi moo tax axraja at-Tabaraani an abi umamata al-Bahili qaala sami'tu rasulallah sallam yaqul lama balaga waladu maat ibnu adnaan arbaina rajulan waqacu fi askari muusa fantabahuuhu fa daa alayhim muusa fa awha allahu ilayhi laa tadoo alayhim fa inna minhum nabiyu l ummiyu naziru lbashir wa minhum al ummatu almarhumatu ummatu muhammad alladina yarduuna min allahi bilyasir min arrisqi wa yarda allahu minhum bilqalili min alamal fa yudxiluhum aljannata bi qawli laa ilaha illa allahu nabiyuhum muhammadun ibnu abdallah ibnu abdul muttalib fi hayatihi al kon lii fekkoon na yonentu yàlla Muusa amoon ko gis nga ko timit Buxaari yu gën jële ci Ataa ibnu Yasaar mu ne maa dajeeg Abdullahi ibnu Omar ibnu Aas mu ne solo na ma melaw yonentu bi ko solo na melaw yonentu bi ah innahu la mawsuufun fi tawreet bi ba'di sifatihi mu ne ko de dañoo li ma li may laaj meloom wi luñ mel luñ solo la ci tawreet ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran wa daa'iyan ilallaahi bi iznihi lii tawreet andi woon na ko tam ne meloo yonent bi la ne tamit nekk na koo xam ne ah yàlla nga ko cay wax ne ko anta abdi wa samaytuka almutawakkil lay maanaam laysa bi fadlin wala xalisin wala saxaabin fi l wala yujisi bi sayiati sayi'a walakin yaafu wa yasfahu lii xamaloon na ko ko mu ne ko kooku mooy sama yonent bi naa ko kuy wakiilu ki nekkut ku ñaaw jikko nekkut ku xiis nekkut kuy yuuxu njëkkati kàddoom ci marché yi nekkul kuy fayee lu bon ci lu bon ku ko fayee lu baax ku ko fayee lu bon mu fayee la lu baax waaye dafay nekk kuy jéggale kuy kuy jëllale lii lépp ay meloom la woon ñu ngi ko ko doon xamal ñi def ko ci tawreet gis nga ko tamit muhammad ibnu hamsata ibnu abdullahi ibnu salaam jëlee ca maamam abdullahi ibnu salaam mu ne dégg na ci génn ak yonantu bi feeñam ci makka mu génn dajeeg moom ne ko fa qaala lahu annabiyu yonent ne ko anta ibnu salaam yaa ibnu salaam aalimu ahli yasrib yaay borom xam-xamu waa yasriba di madinatu munawara qaala naam qaala nasatuka billahi alladi anzala tawrat ala Muusa hal tajidu sifati fi kitaabillah mu ne ko ndax dama lay laaj la lent lu ci téere bii di tawret yàlla wàccoon ko ci Muusa ndax fekkoo sama melo ci téeréem ba mu ne ko neexul ba neexul waaye fekk naa fa sa melo ci sa téere ba ci ba ah kon nag nga xam ne yonent bi kenn réeriwut ko du waa asamaan du waa suuf ñépp a ko xam te liñ ko xamee lépp muy lu baax lu sell lu rafet naka noonu yonent yàlla aadama xam na ko waxoon na ko doomam yi Moussa wax na ko xeetam yi Isa tamit wax na ko xeetam is qaala Isa bnu Maryama yaa bani Israila inni rasulullah ilaykum lu mu ca teg musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmadu lii la Isa wax nitam ñëpp comme ni ko yonent yàlla Moussa waxee nitam ñëpp aaya jooju yonent yàlla Isa ko moom ci ya'ti min ba'di ismihi ahmadu moom nga dégg bu sayru yi di wax ne ma madat fatratun min ar-rusuli illa basharat qawmaha bikal anbiyaaw xamul benn yonantu bu liggéeyee mission ba muy jeex rek dagale na xeetam wax leen ne ah sa waajaa ngi ñëw de man de lancement laa woon waaye borom film baa ngi ñëw wa kullu nabiyin jaa yubashiru qawmahu bi annaka taati xaatiman li nubuwati loolu la ko yàlla defal juróom ñetteel ba moom kenn la yàlla jagleel yónni ko ci mbooleem mbindeef fii yonentu boo waxati nitam ña rek wa laqad arsalna noohan ila qawmihi wa ila aadin axaahum huudan wa ila samuda axaahum saalihan wa ila madyana axaahum shuayban waaye kii nag wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina ñooña seen liggéeyeer yañ amoon manta daj kàpp àdduna bi benn gox benn côté la mën a leeral moo tax seen leer ga ñu jubale benn côté ki seen nit ña rek fa la mën a xam bu ko paasee dootul leerati yonentu bi nag la yàlla jox muy leer boo xam ne mën naa daj kàttu àdduna bi ba mel ni jant bi wala jant bee mel ni moom foo mën a ne mu tiim la ak noo mën a mel rek tabaarakallaahu da gis ne leer ga tamit dana la leeral ku bëgg a nekk fu la jant bi du tiimee danga nga am problème xamal nit ñi problème ku bëgg a nekk fu la jant bi di leeralee danga nga am problème xamal nit ñi problème kon moom kenn la yàlla jagleel leer ji daj kàpp fépp ci lépp ci ñëpp moom kenn ko jag moo tax yàlla ne ko wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina juróom ñeenteel ba moom kenn moo jagoo yàllaam lëmm di julli ci moom malaaka yi di toppandoor yàlla ci julli ga mbooleem jullit ñi fu mun di nekk ci àdduna bi ku ci bañ a yàqule julli si yonent bi moo tax mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon nag yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kenn ko jagoo de keneen ku dut moom xamu loo loola moom kenn ko am moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla am lëmm sax na dàkk di julli ci moom malaaka yi na ngay julli ci moom kon yéen ñi gëm yàlla gëm bis penc ci dee leen julli ci yonantu bi bu ko defee nag imaamu Malik ne ku dund ba génn na julli woo ci benn yoon xam nga bàkkaar ndax salloo ji moo tax al amaru la te al amru yadullu ala al wujub maa lam yu sarifu sarif te fii gisuñ ko soppi yóbbu ko ci eh, amaru nat boog ibaaha yooyu déeréet amar ji amar wujub la moo tax mu ne waaye boo julli woon wenn yoon ci moom nag sa dund gi lépp wàcc na la waaye nu mu gën a bëree gën a baax nu mu gën a bëree rek gën baax nga jël ko mel ni Cheikh na Tijaani wirdoom bi ko maamam jox mu sant la bis bi lu gàtt gàtt nga nga nga nga julli ci yonent bi ñetti téeméeri yoon boo wasifa ñaari yoon ñetti téeméeri yoon nga julli ci yonent muy muy limab rabbiya te wirdoo suba wa téeméer salaatu ala nabi wirdoo ngoon wa téeméer salaatu ala nabi wasifa wa suba juróom fukk bu ngoon wa juróom fukk muy limab rabbiya su fekkee wenn yoon nga wasifa ñaar téeméer yoon ak juróom fukk yaa ngi ko jul si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy deux cent cinquante kon moom kenn jagoo loola kenn xamul loola waaye tamit fukkeel bi moom kenn la yàlla jagleel mu def isra war ci kawam daaba mu bàyyee ko ba ba masjidil haram dem ba ci masjidil aqsa yàlla yéege ko jëmmu jaag rooxu ga yépp mu jéggi juróom-ñaari asamaan jéggi sidratul muntaha jéggi haras jéggi kursiyu jéggi raf dem ba féetee kaw kaw giseeg boromam mu yëkkati juróom fukki julli jox ko ko mu ñëw di ko indil xeetam wi fekk fa Moussa juróom benneele asamaan muy wàññilu ba mu des juróom fukk ya yàlla xamal ko ne ko coono ba lañ wàññi waaye parar ga wàññi wuñ ca dara ndax maa yu badalu xawlu la daya te nag ah wàññiwuñ ca dara man jaa bil hasanati fa lahu asru amsaaliha kooku moom kenn koo am de dafi isra wi ci kaw daaba tabaarakallaahu muy buraax ñi ne rooxu ga rek a dem ñu ne déedéet njuumte la bu doon rooxu ga rek yàlla du wax subhaana kenn ku ci nekk loolu lekk lekk ndigg léegi léegi sa rooxu gi dem ko sa jëmm ji demul kenn loolu loolu nit na koy def waaye nag rooxu gaag jëmm jëm liñ xamee woon liñ xamee woon rooxu mooy wàcc liñ xamee woon jëmm mooy wàcc waaye moom rooxam nga Cheikh na Tidiane nee na dañ koo mooñee ca suufu aljana fa lañ ko tibbee looloo waral mu baaxoo yéeg ni rooxu gi mel ni la jëmmu ja mel keneen ku moom nag sa rooxu gi ak sa jëmmu ju duñ benn yàlla dafa jël sa rooxu gi bu melee nam war a mel ma nga dëkk asamaan mooy cosaanam soo ko yàqut ba tey bu fa bëggee dellu dina yomb sa jëmmu ji suuf mooy mooy cosaanam moo tax fi lay ci suuf lay génn àdduna ngi denc ko ci suuf minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra waaye yonentu bi nag la yàlla jagleel ni rooxoon gi dëkkee asamaan ni la jëmmam gi dëkkee asamaan moo tax yéeg yéeg yomb ko moo tax yéeg googa la yàlla di yembale subhaan la di asra bi abdihi te baatab abdu arab du ko wax jëmm jëmm lu dul mu ànd ak roox rooxu kese kay bi roox yi la yàlla wax mais bi abdihi fu ko fu ñu waxee abdu rek jëmm joo xam ne yàpp waa nga fa rooxu jàng ca deret jàng ca dara manqué wut ca moo tax mu ne bi abdi yi kon yàlla ne laylan wane ne waxut layla wane ne xaaj bu tuuti ci guddi la moo tax mu nakkiral ko min al masjidil harami wax na fi mu tàmbalee ila al masjidil aqsa alladi barak naa xawlahu lu tax nag in la mun a li nuriyahu min ayatina al kubra lii moom kenn ko def ba muy dem xiig ci alburaax daxa ba joo xam ne fasa ko hëpp waaye moom moo ëpp mbaam gaawaay ba mooy bët ba juróom-ñaar fukki junne malaaka escorté ko ànd ak jibril ñii ànd ak mikaayil juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk ànd ak israfil ak asrail ñi ci ndeyjoor ñi càmmooy ñi kanam gannaaw moom moom ba ca euh, masjid maanaam euh, masjidul aqsa yàlla dekkil yonantu yi tabaarakallaa ñu sol seen jëmm ya def juróom-ñaari sàq mu jiite leen ñaari rakkaa ñaari rakkaa ya nag mooy rakkaay la loolu naka jekk mi ngi ko doon julli yonantu yi ko doon julli waaye bul wax ne ma ngay jëli julli di jiite julli déedéet yonantu bi jëli fu doon julli dafa doon julli dafa doon jëli li mu julli xeetam bi xeetam bi ñaataa war a nekk seen li mu julli moo tax ba mu demee suñu borom jox ko juróom fukk ya Moussa ne ko sama xeet wee gënoon a ëpp doole sa xeet wi te mënuñu woon lii damal wàññilu ji muy wàññilu ji wàññilu ndeketoo xeetam wi kat seen li mu julli mooy juróom mooy juróomi julli yu taxaw taxawaay juróom fukki julli kese loolu la doon jëli waaye du jëmi julli moom ba mu demagoon mu ngi daan julli naka jekk ñaar rakka suba ñaar rakka ngoon ci ani tabi millata Ibrahima hanifan bu daan julli di jublu masjidul haram na ko maam Ibrahima daan defee su ko defee kon loolu la ko yàlla jagleel fukkeel baag benn moom kenn la yàlla jagleel xottee turam wa ci turam wa turu yonantu bi mi ngi xaree ci turu yàlla loolu waykat baa ngi koy wax xasaan wasaq lahu min ismihi luy ji lahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu boo demee ci téere yi am nañu ne yonantu bi dëppoo naag yàlla ci juróom ñaar fukki tur juróom ñaar fukki tur yoo xam ne bu yàlla tuddee lii rek yonantu bi lool lay tudd ñoom ñaar ñoo ko dëppoo ci ay tur kooku nag moom kenn kese moo ko xam tur yooye mu dëppook yàlla ra'uuf ci la bokk rahim ca la bokk moom nga jàng ci alquran laqad jaakum rasulun min anfusikum asisun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina nu doki taw raufun rahimun raufun rahim kat ci turu yàlla yàlla ndax yaa jàng bismillahi rahmani rahim rauf tamit xam na ci alquran bu jeex yuy tekki turu yàlla waaye tamit noonu mu nekkee turu yàlla noonu la nekkee turu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moom kenn moo ko jagoo xamul kenn ku xam loola xamul kenn ku xeeñtu loola ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi ngay topp ay turam mu dëppoog turu yàlla nga topp turu yàlla yi mu dëppoog turu yonantu bi ñoom ñaar ñoom ñaar tabaarakallaahu ba mat juróom ñaar fukki tur yoo xam ne ñoom ñaar ñoo ca ànd kooku doo ko gis ci jënn jëmm ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi waaye tamit moom kenn moo jagoo yàlla lëkkale turam wi ak turu yonantu bi ci place yu bëri kuy nodd ku ne soo ne ashadu an laa ilaha illa allahu wa aw maanaam wa ashadu anna muhammadan rasulullah nga jee teg li ko may nodd ko du wér kuy tuub dugg ci diine ji boo ne ashadu an laa ilaha illa wa ashadu anna muhammadan rasulullah li ko may pumba du wér kuy kuy likkaam noonu kuy taaya noona moom kenn moo am loola keneen ku du noo xamul loolu ibnu moo jëlee ci yoon woo xam ne man a ata mu mu jëlee ko ci abi hurayrata mu ne yàlla bi mu wàccee suñu maam aadama ci hind dafa wéet jibril ñëw xoo ko ci noddu jibril ñëw woo ko ci noot mi allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allahu ñaari yoon ne ashhadu anna muhammadan rasulullahi ñaari yoon aadama ne kan mooy muhammad ñu ne ko axiru waladika min al anbiya kii mooy kii mujj ci sa doom yi xamoon na ko ci tur te bañ ko bindee ca kenooy arasya bisaar génnee hadis bu mu jëlee ci àlliyu mu ne yàlla bi mu bëggee xamal yonantu bi nodd jibril da koo ñëwal te tàmbali ba su ko defee tamit andil ko buraaq bu ko defee mu war ca buraaq commencé di tëbantuy jafe-jafe jibril na ko dalal waay amul kenn ku la mos a war ku gën a tedd muhammad waa ci la ko war nag ah, mu dal nag mu dem ak moom ba ca kiiraay boo xam ne dana dana méng rahmaan te bay na maa woo kasaalika rek mel na malaaka génne ca kiiraay commencé noddu allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah ca gannaaw kiiraay ga ah ci la nag yonent bi xam ne lii mooy ci lañ war a wootee julli ci sama xel bi kon min waraayil hijaab mu ne sadaqa abdi ana arsaltu muhammadan mu dégg kàddu ga mu ne sama jaam boobu li mu wax dëgga la de maa yónni muhammad qaala al malaku malaaka ma ne hayya ala salaati hayya ala salaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar su ko defee mu dégg ci mi lu wax ca gannaaw kiraay gana sadaqa abdi ana akbaru ana akbaru suma qaala laa ilaha illa allahu faqila min waraay alhijab sadaqa abdi laa ilaha illa anna suma aqada almalak bi yadi muhammad fa qaddamahu fa amma ahlu samawati fihim adamu wa nuux fa yowma idin akmala allahu li muhammadin asharafa ala ahli samawati wal ard is kay seyduna muhammad kenn du moom kon loolu la ko yàlla jagleel su ko defee ñeenti yile ci liqaam ci nodd ci tuub ci tudd baatu seede bi ku ko waxta waxoo tudd yorontu bi du wér moom la ko yàlla jagleel su ko defee kon moom tamit la yàlla jagleel ni méngalee turam wa ci noddu ci liqaam ci tuub ci taaya noonu la méngalee topp ga ku ko topp yàlla topp nga yonent bi moo tax alquran ne atiu allah wa atiu rasula waxaat fane ne man yutii rasula faqad ataa allah waxaat fane wa li a waxaat fane ne wallahu wa rasuluhu ahaqu lii lépp moom kenn ko am kon loolu kenn xama ko ku dul yonent bi yàlla ne topp leen yonent bi topp leen yàlla topp yonent bi kon loo mën a mën topp yàlla boo topp yonent bi méngale nam doon toppee sa topp nga demul fet ñett yàlla fa koy teerale ci alquran fu yàlla waxee julli leen rek joxe leen asaka wa aqimu salata wa atu sakata fu yàlla ne jaamu leen ma rafetal leen jëmee seen ñaari waajur yi moo cay tegu wa abdullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana waaye fu yàlla waxee tamit ne topp leen ma topp topp leen Seydina Muhammad ma ca topp wa atiiu laa wa atiiu fee moom dafa tegaa fi sax ne maa ngi teew rasul faqad ataa Allah yonent bi la jiital fële mu ne wallahu wa a ahaqu an yurduhu fukkeel baak ñeent moom kenn moo jagoo yàlla ne ku ko wuyu ji wuyu ji ma xoote yi bëri nañ waaye wuyu na ngeen wuyu ji ñaari woote xoote bu bu saf yàlla saf yonent bi yéen tamit bu ngeen xootee xoote ba saf yàlla saf yonantu bi ba nit ñi wuy si leen ci na ngeen ko safal yàlla ak safal ko yonantu bi bu leen ko safal seeni maam bu leen ko safal seen i sëriñ bu leen ko safal politique moo tax yàlla ne yaa ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi mais wa li rasuli waaye tamit fukkeel ba ak ñeent yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama tabarakallahu moom la moom la yàlla jagleel loolu ma wax la bind turam wa mu lëkkale ko turam wa ci aras ci asamaan yi ci jëyi malaaka yi waxoon naa la ko waaye fukkeel ba ak juróom mooy kii malaaka yi tudd turam wa bépp waxtu waxtu woo wax rek malaaka yaa ngi tudd turam yonent bi yadkuru almalaikatu ismahu fi kulli saatin wa yadkuruhu almuslimuuna fi kulli yawmin xamsa marat fi naxwi al adaan wal iqaama wa tasahudi demet loolu moom la ko yàlla jagleel waaye tamit fukkeel ba ak juróom-benn yonentu boo mën a waxati bu ko yàlla tudd ci alquran rek ca turam walay jaar waaye yonentu bi bu ko yàlla tudd rek ba lay jaar lii sax tekki na ci alquran luy tekki ne yonentu bee gën mbooleem mbindee fi yàlla yi yonentu bee gën ci mbooleem yonentu yi aadama turam ñëw na ci alquran noox turam ñëw na ci alquran ibrahima ak moussa ak sakariya ak yahya ak isa ba mat ñaar fukki yonantu ak juróom la yàlla tudd waaye kenn ku ca nekk ba lay tudd dafa lay sàllawlu ki sa yaa jàng Adama yaa Adama uskun anta wa zawjuka aljanna yaa Nuuxu isbir bi salaam minna wa barakaatin alayka Ibrahim yaa Ibrahim a'rid an haza Moussa moom kenn xamut nu mu toll ci alquran wa id qaala Moussa li fataahu yaa Zakariyaawu innaa nubashiruka bi gulaamin yaa Yaxya xuzil kitaab bi quwwa Iisa bnu Maryama kenn xamut ni mu toll. waaye Muhammad doo ko gis mukk loolu la muy wax yaa ayuha nabiyu ee yow kuñ solo yaa ayuha rasulu baliq bam jeex ngay fekk ci alquran waaye yaa ayuha muhammadu amut yaa muhammad amut turam wa nag ñëw na ñeenti yoon waaye boo ko fekk rek bu turaway ñëw garaat ba tegu ca wala garaat ba ñëw turawa door a ñëw muhammad ñu ne ko kan la mu ne rasulullah len na maawo asdaw wa ma muhammadun lan la mun a illa rasulun qad xalat min qabli rasulun nusila alaa muhammadin wal xaqu balaa ja jeex kon nag loolu ngay fekk ñu def ko ak yu mel noona waaye turam wa ñëw nii rek fokk mu ànd ak benn garab ba jiitu wala tur wa tur wa jiitu garaat waaye mënuñoo mënuñoo mënut a ñëw moom kenn mukk moom kenn fukk ak juróom-ñaar la yàlla jagleel dëkkam ba moo gën ci mbooleem dëkk yi dëkkam ba yàlla jagleel def fa néeg bi jiitu ci néeg yi muy kaabatal musarrafa inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin tuddee nañ ko bakkata ndax fa la ñuy doqi kàccoor yi maanaam tabukku fii aanaa ko jabaabira ñu bàyyi ko ci bakka moom nag fam tur muy maanaam mooy mooy moo jiitu baytul maqdis muy maanaam masjidul haram laaj nañ ko yonent bi moom kaaba gi lu fi jiitu mu ne ko kaaba gi jiitu na ko fi ñeent fukki at kon inna awala baytin wudia linnaas lalazi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin mu waxaat di tagg di tagg dëkk ba awlam nu makkin lahum haraman aminan tujba ilayhi samaratu kulli shay'in risqan lépp ma ngay tudd dëkk ba dëkk baa foor ba yàlla gënca laa uqsimu bi hadha al balad wa anta xilun bi haadal balad wa walidin wa maa walad kon dëkkam baa gën ci mboolem dëkk yi muy Makka imaamu Saafiyu ak imaam Malik wuute nañ ca Saafiyu Makkiyu la Malik Madin Madaniyu la ñoom ñaar ñi werante ku gën ñaari dëkk yi bu ca gën Saafiyu ne Makka gën ci moom la yàlla gëñ ci laa uqsimu bi haadal balad màkkaa gën fala ma fala fala kaabatul sarafa nekk makka gën fala dox safa mar wa nekk màkkaa gën fala maamam yëpp juddoo màkkaa gën fala ma fala juddoo moom màkkaa gën fala alquran njëkk a wàcc iqra bismi ka màkkaa gën bañ ko fay génnee nangam ak nangam bañ génnee ko fa ba tax ronka yee sottee ko imaamu maali ne ko li nga wax lépp baax na waaye ma dinaa gën benn aaya rek li nga indi ci ay aaya dafa bëri man benn rek laa lay wax wax yonent bi ne ko yaay koo xam ne xamoo tànki gannaaw tànki kanam rek sa tay moo gën sa démb sa démb moo gën sa barki démb suma ina alaynaa bayaanahu téere boo xam ne firi nañ ko ci lang yëpp lang wu ñuy lang ci kaw suuf rek firi nañ ci alquran firi nañ ko ci arab bi mu wàcc firi nañ ko ci anglais firi nañ ko ci français firi nañ ko ci espagnol firi nañ ko ci séeréer firi nañ ko ci manjaago firi nañ ko ci tukulóor firi nañ ko ci olof firi nañ ko ci sarakule firi nañ ko ci làng woo mën a waxati ñu koy làng ci kaw suuf rek seen ñoñ ña maanaam firi nañ ci alquran ca làng woo loolu moom benn téere bi rek moo ko xam baat na sosoo ba léegi moom moo xam loola muy téere boo xam ne ay millions yi koy wat mu nekk seen dënn ñu koy jàng te kenn du ko ko duñ ko xool loolu tay su ko defee moom la yàlla jagleel loolu kon maa ngi yow ba ci ñaar fukki may tabaarakallaahu ak benn boo ma toppee suba nag ma ñëw ak yow ci ci ñaar fukkeeli may gi ak ñaar ak lépp lu ca xaju boo ma toppee suba ma topp ko daal ak yow ba juróom benn fukki may yeeg ñett jeex tombeeg juróom benn fukki ak ñett yim dund ma door a dugg ak yow nag ca leeram nga fi muy jaaree ci kiiraay jaar ca géej bañ koy dénk aadamaak euh, ba ci Idrissa ak la ca xaju ba muy ñëwee ba ci Abdallahi moom muy door di juddoog la ca aju loolu topp ma suba ci waxtu wi ma saf ak yow li ma sosoon ak yow wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu